aoudubillahi mina shaytani rajim bismillahi rahmani rahim <clears throat> alhamdulilah wasalatu wasalaam ala rasulillah sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa sallam bi sunnati ila yawmi din euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu euh, yéen mbokki Sénégal mbokki bitim réew wala jullit fu mu nekk mën na ci àddina bi ñu ngi nuyu di la ziara jël na ko ci weeru koor bi nga xam ne ramadan mubarak la di weeru jullit weeru lislaam ñeen <clears throat> bépp jullit boo xam ne dangaa nekk ci ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di si ñaan góor jigéen ñi may leen wér may leen kàttan yàlla nangul suñu or nangul suñu jaamu nangul suñu ñaan yépp ak suñu farata ak suñu naafila ci barke leen nuyu bu baax di leen ndokkee di leen seen doom la seen xarit seen bokk seen doomu ndey seen lépp mbokkum Sénégal comme yéen euh, ñu koy wax Cheikh Serigne Mbaye dëkk Saloum juddoo fa yaroo fa màggee fa jàngee fa xamee fa wër dox dajale lo xamne ay xam-xam la ay xéte xam-xam yu gën doomu adama ci zaar ak ci baatin gannaaw bi gorale góoralee xam-xam yi nga xam moy xam xam-xamu charia islamiya diine qur'an ak fiqh ak bu ci aju euh dañu topp li nga xam dañ ko jël suñu maam muy xam-xamu secret bi nga xam ne moom lañ ko dee asraar mooy xam-xamu faj ndax yàlla moo gën doomu aadama ci ay jafe-jafe ak ay coono ak ay feebar ak ay masaakil yooyu nag bi ko tegee doomu aadama bi def ko boole ñu koy faj ñu ngi saa sa mena li kulli daa in dawa feebar bu nekk rek am na lu koy faj problème bu am rek am bu nekk rek am na solution boo xam ne moo koy moo koy moo koy moo koy moo koy moo koy kii moo koy moo koy xàll maanaam moo koy mooy mooy xàll solution bi léegi nag feebar yooyu noonu ak jafe-jafe yooyu noonu bu ñàkk ci dund doomu aadama ngay jigéen ngay góor léegi bu fekkee ne loolu daan la li war ci yow li jaadu ci yow mooy koy jóg dem seeti koo xam ne yàlla jox na ko loolu nga jëflante si moom mu mën na dimbali muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw ndax xam-xam dégg nga nekku ne ci kër mag ci mag la war nekk wala ci ndaw la nekk ndax bana borom xam bu mag bu siiw Sénégal ñu def ñu xam ko wax ne fa inni laa ara seen xeyran gisuma ne xam war nañ ko xeeñ xale bu fekkee nekk na ci moom kon bu yàlla defee ñu nekk ay jeunes nekk ay ndaw yàlla joxuñu secret yoo xam ne jëlee nañ ko suñuy maam ak suñuy suñuy suñuy baay ak kilifa yoo xam ne yàlla baaxal na leen ci biir Sénégal ak biir Sénégal yépp dégg nga ñu dem jëli ko am ñu dem tam am ñu ñëw Sénégal fekk ñu ko jox ñu ko loolu buñ ko amee ñu am ndigal suñu waajur war ko mën a jox képp koo xam ne soxla na ko loolu dañ ci yàkkamti dañ ci sawar dañ ci oo bépp doomu aadama boo xam ne incha allah ah, soxla na ko wala bëgg na ko ñun nag comme ni ñu ko waxee jamono bi waxee ñu ngi fi Dakar dem nañ fi Mali dem fi Mauritanie dem fi Gambie waaye gis nga doomu aadama yi tout ça dama xam ne xubbul wàcc na minal imaan yi doomu aadama dafay bëgg sa réew ndax bokk na ci gëm yàlla moo tax ñëw suñu réew Sénégal nekk bi pour jëflante bépp doomu aadama boo xam ne gis nañ ne yow war ngaa mën a soxla ci li nga xam ne nii moo ñu tax a jóg euh, ci ay kàddu yu gàtt rek ndax nit ñi léegi amatuñ temps te amatuñ jot te wax ju bëri daanaka lu gàtt te fasaha mu ko njëriñ euh, dañuy bëgg a ñëw rek wan leen ne li nga xam ne moom la ñu yàlla ci ay xam-xam yoo xam ne mën nañu ko jëmal doomu aadama yi ci ay feetu feebar yoo xam ne yàlla jox nañu secret wax dëgg yàlla lu mel ni hémorroïde bi nëbb bi ak bi làq bi dañ koy dañ koy faj alhamdulilah ndoxu siti dañ koy faj alhamdulilah macha allah am na ci résultat yoo xam ne dëgg-dëgg ñëpp ñu ñëw ci ñun wala ñu jokkoo ñun téléphone oo ñu ñu wax leen ay tegtal dëgg-dëgg gis nañ ci résultat lu mel ni euh, am doom maanaam lu xaw a euh, jafe la ci Sénégal lu jafe la lu metti la loo xam ne nii lu sonal askan bi la yàlla dimbal nañu ba nga xam ne am nañu ci secret am na ci mbóot képp ko xam ne nii bëgg nga am doom doom ju xalaal du dagan yoo xam ne ci lislaam koy amee yow sa jëkkër incha allah ngay góor la ngay jigéen su su jokkowee yàlla mën nañu dimbali ñu am si résultat lu mel ni diggante jigéen boo xam ne dafa tëju dafa dafa dañ ko téye wala yàlla daf ko yàlla daf ko ko baaree wala rab ko téye pour mu bañ a am jëkkër wala góor goo xam ne nii wërsëgam dafa gàtt dafa ndaw dafa néew mu am amam daal demeewul noonu loolu yëpp alhamdulilahi rabbil alamin dañ ci yëngatu dañ ci jëflante doomu aadama yi lu mel tamit li saxaar wala seet loolu yëpp am na ñoo xam ne am nañ ci ndax seet dafa am façon am na seet boo xam ne Euh, sunguf la am na yoo xam ne kurus ñu ko defee am yoo xam ne ci ndox la am yoo xam ne li saxaar lay nekk ndax li saxaar moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngale loolu yëpp am nañ ci xeeti seet yoo xam ne dëgg-dëgg képp ku jokkoo ñun nga bëgg seet am loo soxla dañ ko jëflante yow ci loolu euh, nit ki nga xam ne ñu oo muy bitim réew bu jokkoo ñun dañ koy seet ba xam ne la ndax nit ki il faut nga xam biddiwam xam burjum nga mën a jëflante moom ndax boo xamul biddiwam xamul burjum doo mën a jëflante moom ndax néeg mënoo cee dugg te jaar ci bunt bi doomu aadama mu nekk def am bunt bunt boobu kenn mën a jaar pour xam ne kii moom lii mooy jafe-jafe lii mooy feebaram comme xam nañ ko dañ koy def yu bare bari sax am ci seet am nañ ko dégg nga lu mel ni ay toppatoo këyit doomu aadama yi nga xam ne ñu ngi tukki di lijjanti ay këyit mu jafe leen ñi nga xam ne tey ñu ngi bitim réew da nga nekk fa lool yàgg fa taal moom ay papier di ko ut mu jafe leen dëgg-dëgg bu jokkoo bu ñu jokkoo ñun yàlla mën nañoo dimbali ndax am nañ ci secret ñun ñëpp ñu ci jëflanteel dëgg-dëgg gis nañ secret yi gis nañ njëriñ gi alhamdulilah waxuñu ko nag pour progrès waxuñu ko pour leen lañu ko pour sant yàlla kese ndax wa amaa bi ni'mati rabbika fa hadis lii mooy li nga xam ne lu bëggoon leen koy wax am na tamit ay façon jaar yoo xam ne dañu koy liggéey ndax jaaru yi lu ñuy liggéey la am na xeeti jaaro am na yoo xam ne day ànd ak euh, per bi per bi day am ay différence day day marron wala mu bëla wala ma vert bi ma takk nii bu bu marron la gis ngeen ko am na boo xam ne du nekk per waaye dañuy kase jaaru bi ak la ñuy def ci biir wala mu nekk xaatim boo xam ne day ànd ak jaaru bi bëri na ay façon képp ku jox ko ñun incha allah dañ ci dañ la ci expliquer lu gën a leer dañ la ci wax li muy jëriñ ak li nga xam ne moom lay def am na yoo xam ne tam ay ndomb la dégg nga lu jëm ci wàllu ubbu ubbeekaay lu jëm ci wàllu euh, kaaraange nga xam ne doomu aadama yi léegi dañoo xaw a am ñu si xaw a ñoo xam ne dañ lay xeex yow mi nekk sa bureau wala nga nekk am place place bu baax boo xam ne place liggéeykaay la nit ñi di la xeex wala di la di la di la jéem a sonal dëgg-dëgg bu ñu ci jëflante yow dañ la ci jox garanti boo xam ne incha allahu taala kenn du euh, ngi Dakar fii nag ñu ngi Parcelles Assainies unité 5 dégg nga ci rond point case bi boo ñëw ba ci pharmacie àlla bi rek ci premier garage bi ngay jàddee dem golf boo fa taxee boo ootee ci numéro yi ngay joxe incha allah dañ la dañ la indi wala boo jokkee man incha allah danaa la danaa danaa la wax ba nga yegg ci kër gi ndax su réewul numéro yi fekkee whatsapp bi la nga xam ne ñu ngi bitim réew di jokkoo ñun ci whatsapp bi te muy gën a yomb ci ñoom da ngay def sa vocal rek nga wax li nga soxla suñu paree tontu la numéro bi 77 la gannaaw ba defee 00 221 77 619 33 38 moom mooy mooy whatsapp bi 619 33 38 mooy whatsapp bi ñu nekk ci réew mi mën nañoo oote ci numéro Tigo bi 76 la 722 22 99 722 22 99 ñaari numéro yi bër numéro yi bëri nañu waaye ñaari numéro yi allah ku ci oote da ngay da ngay jot soo ma jotul da jot ñoo xam ne dañ la dañ la dañ la wax man fi ma nekk soo ma bëgg a tamit directement da nga jël numéro whatsapp bi 77 619 33 38 ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm di gërëm ñi nga xam ne ñooy waa Allo Dakar si la boo xam ne Sénégal yëpp xam nañ ko ñu ngi liggéeyal diina di liggéeyal lislaam di liggéeyal seen réew ñu leen di ñaanal yàlla di ko jiite ak ñëpp ñi nga xam ne ñu ci liggéey yàlla dafa leen tawfeex dafa leen jàmm kon ñu ngi sant ñëpp ñu ngi gërëm ñëpp loolu moom kàddu yi waa axru daawana alhamdulilahi rabbil alamina wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa